à vie xool leen Sénégal pouvoir d'achat local xool leen Sénégal 46 pour cent xool leen ña ca topp waaw ngeen ne lii dund la nga ànd ak ay nit ñoo xam ne wër nañu réew mi fenn fenn fenn fenn fenn ba ñu jox leen réew yaakaar ne mën nañoo continuer di fen di feesal biir yi c'est pas possible et tey jii li xew tey vidéo yi génneel ma ko c'est juste pour montrer à quel point la ñuy fontoo Sénégalais yi nee naa leen Victor Ndiaye bu cabinet performance tegal vidéo bi ngeen xool Victor Ndiaye Souleymane Diallo aujourd'hui Victor Ndiaye mooy wax exactement à mi-chemin de 2035 Victor Ndiaye mooy wax nii et pendant ce premier cycle de l'émergence on l'a vu vous avez bâtit les fondements. Et c'est important, à, à l'heure du bilan, de le dire aux Sénégalais, le gros œuvre de l'émergence est aujourd'hui en place. Et ce gros œuvre, c'est la partie la plus difficile, comme toute impulsion. C'est la partie la plus coûteuse en investissement public. Et c'est la partie la plus ingrate, Victor parce que de gros œufs, personne ne peut y habiter. Victor Ndiaye wax. mais grâce à votre bilan notre pays peut aujourd'hui engager un nouveau cycle vers l'émergence. moo ñu wax PSE bu Macky Sall. en effet mm-hmm. l'émergence économique ce n'est pas de tout faire mais c'est de très bien faire des priorités qu'on se choisit. ok waa ji wax ni mooy ki ñu présenté tey projet Sonko 2050 wan leen ñu ko. seetaan ngeen ko même waa ji moo ñu présenté tey jii projet Sénégal horizon deux mille cinquante may ma ma ñëw kii ci topp nii am na koo xam ne pause pause pause Souleymane mii mais ci biir haut fonctionnaire yooyu la bokk Souleymane Diallo mii ci haut fonctionnaire yi doon liggéey ci administration bi ak léegi la bokk ana Mame Thierno Ndiaye Mame Thierno Thiam depuis 2014 mooy directeur de la planification PSE PAP 3 li ñuy wax PAP 3 yéen xam ngeen ko dem ngeen ci conférence yu bari maanaam ñetti mousquetaires yi ñoom ñoo taxawoon di ko présenter Sénégalais yi waaw xanaa ko booy tricher ak di roy mais xanaa nga soppi nit ñi sax c'est dire même booy sàcc da war a nekk ponkalu sàcc un bon sàcc mais gars yi doon wax ñoom lañ ñu indilaat présenter ñu les mêmes personnes ñu jàkkaarloog askan wi ginnaaw bi ñu jaayee PSE PSE doxul puusul paasul ñu seppi fi Macky Sall jële ko fi ñu ñëw dar Ousmane Sonko ak Diomaye ne ñooy dañuy présenter le projet waaye nag ku amul yaay nàmp maam comme projet amul te boobaak léegi ñu ñuy dig projet at mu ne weer wu nekk ñu ne ñu tel jour projet bi dana génn ah ku indi projet bu leen ko bu leen ko dóoree rek gars yi gars yi gars yi gars yi présenté ñu ko et li ci gën a grave vous avez entendu le premier ministre Ousmane Sonko nee na ce document il est provisoire nee na document bi ñu leen présenté parewul. c'est gravissime. waa mais ñii ku ñu yab. waa mais Ousmane Sonko ku mu yab yéen sénégalais yi lu tax Ousmane Sonko yab leen mais yéen sénégalais yi pourquoi Ousmane Sonko nawloowu leen mais yéen sénégalais yi pourquoi Ousmane Sonko lu mu yëkkati teg leen nga gis am na ay nit ñoo xam ne comme ay xar di darti darti. naan joomay mooy sonko sonko mooy joomay yow cette histoire laa aujourd'hui mu la yóbbu sil xafaar mënuloo dund dund bu yegg mënuloo jaay lu jar nit ñi am nañu ay jafe-jafe mënuñoo feebar faju et puis nag li ma ci gën a metti li nga xam ne sama xool la jàpp bi ñuy wax ci wàllu sante dëgg naa leen ñu tudd ay cancer dëgg naa leen ñu tudd ay jabet mais insuffisance rénale kenn tudd ko. on a près d'un million de sénégalais yuy souffrir ci insuffisance rénale. tu as près d'un million de sénégalais yoo xam ne vingt cinq centres la ñuy xëccoo boo leen fekkee hangar de pèlerins nañu leen fay ñàkkale fayda nañu leen fay tase nañu fay buruxloo sa xol day jeex. et pourtant benn unité pour def traitement dialyse unité bu trente postes la koy financé matul 150 millions c'est juste pour dire que ñii ñu jiite ci seen mbiri bopp la ñu nekk c'est juste pour dire que ñii ñu jiite li ñu ñu présenté tey jii ku nekk xam na ne du plan buy soqali maçon bi du plan buy soqali soudeur métallique bi du plan buy soqali mécanicien bi du plan buy soqali baykat bi waaye plan la boo xam ne c'est une planification centralisée ay borom costume ak cravate ñoo dajaloo ci bureau jàpp ne nii lañuy defaree Sénégal maa koy wax ci wàllu fruit dégg naa ñuy wax waxu industrie pharmaceutique c'est bien c'est quand même une enveloppe de quatre-vingt-quinze milliards boo xam ne Sénégal mun na ko récupérer et pourtant xam-xam baa ngi fi et pourtant yoon baa ngi fi mais ànd ak ay nit ñu cuune dégg naa leen ñuy wax ne al loo sax laa dégg et foofu ànd naa ak moom parce que dafa bokk ci suma programme dama ne réew mi bu ñu leen bëggee dimbali il faut ñu jaare ko ci les institutions de microfinance décentralisées les IMF et les SFD parce que xaalis war nañ ko mën a yeggale foofu ñoom ñoo xam li nit ñiy dund ñoom ñoo dëkk ak nit ñi kon bu nit ñi amee jafe-jafe ci ñoom la ñu war a def mais kan mooy financer suñu économie Sénégal suñu système bancaire banque yi ci Sénégal daanaka. 80 pour cent des au Sénégal ay étranger ñoo ko moom waaw est-ce que ay banque yu ay étranger moom xam nañu ñun suñuy réalité est-ce que banque yu ay étranger moom dinañu financer suñu économie déedéet moo tax ci biir plan bi nga xam ne ñun dañ cee gëstu woon ñu ne ñaari ak bu nekk dana danañu taxawal ñaari banques yoo xam ne capitau yi c'est à c'est des euh, capitaux sénégalais lay nekk à cent pour cent xaalis ba fañ koy jële dañ koo wax teg ko ci taabal ji xaalis ba fañ koy roccee fa la muy jariñ ñu génne ko teg ko ci taabal ji ci wàllu nu ñuy financer économie bi ba tey c'est important de le dire li ñuy def ci wàllu fruit Sénégal day jënd ci at mu nekk lu ëpp ñaar fukki milliards ci fruit bu ñuy jëlee bitim réew bi ma ci gën a metti nag mooy banane bi c'est important boo demee Ndiandane dans le département de Podor dañ fay bay banane boo demee Gouloumbou dans le Sénégal oriental dañ fay bay banane boo demee dans le triangle bi nekk Goudomp diggante Mangarungu Samin ak Yarang Balant dañu fay bay banane banane boobu ñu fay bay mu nekk banaan de qualité indi ko ci zone de consommation bi donc moo des mais am ay gouvernement yu cuune am ay gouvernement yoo xam ne seen vision weesuwul jam ñaajo moo tax ñu nekk ci situation yii ñu nekk kon chers compatriotes mbéjum kanam borom moom moo koy fajal boppam xam leen ne lii defar réew mi ci seen loxo la nekk ñii fi ne mësuñu leen dig lu ñu def et tey je suis à l'aise d'en parler ci benn émission ak Pape Ngagne dama ne leen Sonko jënd na glace ci français français fa génn na ci tey dégg ngeen secrétaire général gouvernement lu mu wax le français CFA est à améliorer jënd nañ glace jënd nañ ca xam nga dafa am ay wax yoo xam ne boo koy wax ñenn ñi duñu comprendre mais man jàpp naa ne ay waxi dof la projection croissance ñaata la ñu wax 6 point 5 la ñu projeté croissance xam nga Sénégal kañ la weesu 6 point 5 2014 lañ ko weesu ñoom ñuy def projection de croissance di ko yóbbu de 6 point cinq ñii delloo ñu ginnaaw la ñu bëgg ñii dañoo bëgg ñuy lekk xeer ñii dañoo bëgg toroxal ñii dañoo bëgg toroxal sénégalais yi maintenant nag li ci des c'est à votre niveau li ci des mooy yéen ñi nekk ci secteur informel nous avons trois millions cinq cent mille entreprises individuelles trois millions cinq cent mille entreprises individuelles bu ñu amoon gouvernement yu smart ay gouvernement yu intelligent génn nañ ci dégg naa leen ci biir document bi ñuy wax transformation ma leen li des daal mooy jël programme mu tekki rek ne léegi comme amuñu projet programme mu tekkee ngi nii def nañ ko projet bi parce que nag liggéey la boo xam ne dañ ko def ak ay nit ñoo xam ne ñu bëgg réew mi lañu ñu wër réew mi parcourir six cent quarante mille kilomètres ci biir Sénégal ay équipe yu bari liggéey ci liggéey bu mucc ayib bu amee ñeneen ñuy rocci suñu xalaat di ko jëfandikoo si c'est pour le bien du pays alhamdulillah man xam naa ne bëgg nañu man xam naa ne Sonko bëgg na mais man bir na ma ne Sonko am na yéene mais mais doom day mënu non mënu mënu